yaa on va enchaîner tout de suite ak euh, bien-être euh, euh, truc yeeg astuce yeeg yu baax yooyu nga xamee ni Mado moo ñu ko tàmmal yaa ñu ko tàmmal Mado yaa yaa ñu ko tàmmal. wane pare ñibbi. Eh, yaa ñu ko tàmmal da ngay wane pare ñibbi. yaa ñu ko tàmmal da wane pare ñibbi. Eh, yaa ñu ko tàmmal da wane pare ñibbi. yaa ñu ko tàmmal da wane pare ñibbi. yaa ñu ko tàmmal da wane pare toog pare toog def seetu bi. bilaay. <laughs> Euh, euh, bien-être euh, tey mm-hmm. da tase ak koo xamante ni France la nekk. Mm-hmm. c'est très tendance sénégalaises yi nga xam dañu fay jógee dem bitim réew di yëngu bu baax ci wàllu esthétique. exact Pape Cheikh comme ni nga ko waxee dañu rencontré benn professionnel boo xamante ne du nom de Daw Mbaye <laughs> Daw Mbaye nag defal benn démonstration de make boo xamante ne en ce moment elle a utilisé les toutes dernières techniques yi nga xamante ne moom moo xew ci maquillage maanaam ñu naan ko contouring mais maquillage bi mu ñuy proposé tey nag c'est très simple Pape Cheikh benn maquillage boo xamante ne c'est naturel chic et glamour nañ dem xool tout de suite. Make-up et formatrice, toutes les femmes ont envie d'un maquillage chic, sophistiqué et lumineux. Donc pour vous aujourd'hui spécialement, un maquillage de fête, glamour, lumineux pour toute occasion. Sur des mouvements ascendants, travailler bien sûr en mouvement ascendant, structurer un sourcil de manière naturelle, puis nous nous attaquons à la phase d'entrée qui devra être toujours naturelle. fois le sourcil dessiné, nous allons passer à la deuxième étape du travail du sourcil primordial. Continuons maintenant sur la structure. C'est un T sur la zone T. Ensuite, nous allons travailler l'ombre. On va commencer sur la partie supérieure du visage en allant vers le creux des joues et en finissant sur l'ovale inférieur du visage. Nous floutons maintenant les zones d'ombre. Bien sûr, il est important de commencer par flouter les zones de lumière et ensuite flouter les zones d'ombre. Bien rester sur le ras de cils pour donner un effet naturel. Non, un fard à paupières effet mouillé. Pour finir, on ajoute une touche glamour avec l'application de l'eyeliner or Thank you. Année à lèvres, nude pour le lisse. Pour C'était notre tutoriel spécial maquillage de fête, naturel, chic et lumineux. Mais n'oubliez surtout pas les trois règles d'or, la matité, l'éclat et l'unification pour avoir un maquillage séduction. voilà réalisé donc à Paris par euh, Mado euh, comme quoi dafa am technique exactement dafa am technique boo xamante moom moo xew parce qu'il faut savoir qu'en maquillage tout le temps dafa am ay nouveauté comme ni ñuy wanee ay rouge à lèvres yu xew ay fond de teint yu xew et tout ça dafa am ay technique yoo xamante dafa xew technique bi ñu ngi ko tuddee contouring contouring ñu ngi ko gën a gis Pape Cheikh ki nga xamante moom moo di ah, sama sama nu mu tuddati Kim Kim <laughs> donc Kim moom moo créé exactement ça te permet de structurer ce visage mm.

peu plus clair la zone T tout le temps moom la def clair les autres couleurs moom la les autres côtés. tay euh, bi gis euh, jigéen ñi di tay seen kanam. nga weex taal dem ci ay fête ak yooyu. waaw a de faire simple et a possibilité de faire jolie comme elle a montré tout à l'heure moom nag technique boobu la def parce que daaw elle nous a parlé d'un maquillage de soir maquillage de soir d'habitude bu def on demande à quelque lenn loo xamante ne accentuer day bare et tout mais moom a c'est très simple c'est raffiné glamour na chic na te pour guddi la di nga génn gis que c'est comme si defaloo maquillage mais on sent que la personne elle est jolie elle naturelle donc maquillage tu n'as pas besoin trop ngay accentuer pour mu mun a fës plus mu gën a discret plus mu gën a rafet parce que buñ ko dégloo bu baax elle a trois techniques yoo xamante wax na ko mooy les trois règles la première règle mooy la matité da fexe customisé nga xamante ne day briller ça c'est très joli ba pare c'est bien unifié maanaam yëpp maase yëpp nuroo c'est naturel donc looloo xew donc on la remercie Pape Cheikh comme ni ma la ko waxee parce que doomu Sénégal la nekk foofu di béy waaram fee bitim réew donc di liggéey comme ni ñu koy waxee bu fekkee da nga jóge Sénégal boo gëmee sa bopp fa nga dem tamit mun nga fa dem di gëstu di dóor sa waar ba nga xamante ne dinañ la naw parce que fi mu ne nii en ce moment elle elle de maquillage donc bu ovation à elle donc maa ngi koy jaajëfal bu baax. technique donc disponible sur YouTube. ci suñu chaîne TFM et il faut rappeler que euh, Mado li mu jàngale euh, dafa xew Bijou a tenté de faire ça sur le visage de. de ex ah génne ay naamam def contouring c'est ça. Mm. contouring c'est ça. voilà les couleurs un peu plus sombres. sauf que ñun effet contraire bi lañ def. chez les mecs c'est le contraire. Ah. donc ce qui est plus sombre on met ci thé bi. mu gën a génn pour faire genre un maquillage tribal. Mhm. donc yi gën a clair ñu def ko ci côté bi pour génne vraiment forme visage bi. c'est ovale donc après. <laughs> voilà les pros. finir ak. ñodd bi bu ko pes de. bi ñodd <laughs> et puis mu nangu ba dee moom. voilà c'est très beau donc si vous voulez c'est disponible vous pouvez commander ma ñëw maquiller leen. contactez Facebook. je suis son agent. <laughs>